xajju ay tiaxan wa li ma laaj la ben question bu ndaw ma la jale sénégalais yépp wax len ma xaj ban kër bu ñëk ban këru baadoo la ngeen daan gis xaj xaju ras amul xaj këru borom doole ak këru borom daraaje yi rek nga daan gis xaj xaju ras quoi c'est parce que xaj dundam yombul dañu mhm. xanté dëgg té dé sakku raket ñaata lay jar 35000 45000 35000 45000

quinze 15000 la koy lañ koy jaayee. Mhm. gamelu xaj day jaay xaj wax ma wax gis moo tax parfois nit ñi euh, may may may xaw a mere tuuti euh, éleveur xaj yi ndax lan éleveur xar yi ñoom li ñu war a régler seen biir dinañ ko régler seen biir te kenn du yëg te dinañ coowaloo rayante te kenn du yëg. Mhm. mais ñun éleveur xaj yi bu kenn amee benn coow rek mu génne ko fépp wélu pande ko ñu doog di am jàmm.